الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنظر أقوى ak waa ëttu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان إبليس الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نأسر الحق بالحق وهدي إلى شهادك المستقيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكو جلدين بوكو طالبي نيلي نيو غن غارفتم نيو dileen ziar bu baax dileen balu aqta dileen bal di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala boole mi defal njeggalam ak yermandeem diko dagaan subhanahu waaye te defal ñu li nga xam ne moom mooy kàttan bañ mën a jëfe ndigalam yi te moytuñu ko tereem mi tam nanguñu suñu mboolem ay baadaari ci barkeb alquraanul karim barkeb nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñuy amaan mbégte rek ci àndaat ak yéen ci seen émission ko sunu boroom comme nañ ko baaxoo di defee ci seen seenu ëttu soxna yu baax yi mu mel ne rek ñu ngi tegoon sunu baaraam ci semaine bi paase ni ñu fàttalikoo sunu boroom sukkandikoo ko ci muamalaat yi waaye nag ni ñuy jëflante ak sunu wayjur yi ak ni nga xamee ni si noonu la ñuy jëflante sunu mbokk yi sunu mbokk yi deret yi waaye tamit sunu mbokk jullit ñi kon mu mel ne rek ñu ngi tegoon sunu baaraam foofu noonu mu mel sunu mbokk jullit tamit xaajoon nañ ko ñaar te moom mooy suñu kilifay diine yi ñi nga xam ni si dañoo jaayante ñoom ñu nekk suñuy sëriñ nekk suñuy seexu yaakaar si ñoom ak gindiku yaakaar si ñoom ñu te ñu ci siraatal mustaqim bañ mën a làq ngërëma suñu borom kon waxoon nañ foofu ñooñu noonu li nga xam ne moom moo ñu war si ñoom si ay muamalaat yu rafet yoo xam ne noonu lañu war a jëflante ak ñoom ginnaaw ba nga xam ne si ñoom jëfe nañ digalal suñu borom yooyu noonu si ñun kon tey dañuy àndaate génn si beneen xaaj bi te moom mooy li nga xam ne si noonu lañu war a jëflante ak suñu mbokku jullit ñi maanaam ñeneen ñi nga xam ne si dañoo bokk li nga xam ne mooy dëralis diine lislaam waaye nag nekk ay jullit ay mu'min ay muridullaahi te moom mooy comme ni nga koy faral di leeralee rek tege ci siraatal mustaqim sàkku am gërëmal sunu borom te see dox ay jéego yu am solo bu ko defee ñooñu noonu suñu borom subhaanahu wa taala lim ñu digal si ñoom rek moom mooy lim ñu digal si ñi njëkkoon wax rek te moom mooy mu muamala bu rafet jëflante bu rafet rafet bu am solo te lépp tege ci dëgg waaye lépp di am ngir jëmmi suñu boroom ñu koy def ngir jëmmi yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala ñu am ci benn objectif moom mooy fàttaliku suñu boroom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moom rek moo yàlla te kenn du yàlla ku dul moom waaye moom mi nga xam ne moom mooy boroom gis-gis bu sore bi nga xam ne li ñu mën buñ mënee wax bëtam bi wala gis-gisam bi tegekuwul si ñu benn yoon bu ko defee suñu mbokku jullit yooyu noonu li ñuy war ci ñoom te moom mooy muamalaat li ñu war a jëflante ak ñoom mën nañ si jiital lekk moom mooy dañ war a bëgg ngir jëm yàlla rek tax li tax ñu jiital loolu nga xam ne moom mooy mbëggeel gi si mbëggeel gi nga xam ne moom moo ñu war si ñun moom mooy mbëggeel buñ xoolee day nekk loo xam ne sii maanaam nit ki bu ko ëmbalee moroomu nitam rek lu baree baree baree baree bare dina ko mën def ngir lan ngir bëgg nga xam ne si bëgg na ko waaye nag ci kaw mbëggeel googu ta lalu ngir jëmi suñu borom rek tax wala woo mbëggeel googu am du jublu ko rek bëgg nit ki ngir jëmi yàlla suñu borom tax waaye di jëfal nit ki ngir fàttali ko suñu borom bu ko defee mbëggeel googu moom moo lay yóbbu nga mën a jëflante ak moom si yeneen yeneen jikko yu rafet yépp mën ko dimbali mën ko taxawu waaw yéene ko lu baax di ko di ko jàppale di ko conseiller di ko yedd loolu yépp mbëggeel gi moo koy lal nga xam ne bu fi loolu amul maxaba boobu mawadda boobu bu fi amul boo ko ëmbalut sa moroomu jullit beeg yeneen yi si yeneen yi si bari mën nañ ne yeneen jëflantu yi rafet doo ko man faaw rek kon mbëggeel gi moom mooy si jiitu kon sunu mbokk jullit yi dañ war a bëgg ëmbal leen li nga xam ne moom mooy mbëggeel ëmbal leen cofeel loolu moom moo yóbbu ñu yërëm leen dañuy wax ne xadis bi dafay wax ne bu ñu bëggantee ñaar yi nga xam ne si dañoo bëggantee ngi jëm yàlla suñu borom ëllëg joomal xiyaam dañ leen di boole ci juróom-ñaar yi nga xam ne suñu borom daf leen di defal ak ker maanaam dañuy kerloo ci ron aras te moom mooy bis bi nga xamee ne si jant bi dana tim bopp yi ba nga xam ne si nit ñi dana ñaq ba mën nañ di lab sax ci seen ñaq yooyu noonu ñooñee nga xam ne dañoo bëggante ngir jëmi yàlla suñu borom kat ñooñee dañuy kerlu duñ bokk ci ñi nga xam ne si maanaam danañ danañ danañ jànkonte ak métit boobu noonu kon nit ñi wala boo julli ñi dañ leen war a bëgg dañu war a bëggante ngir jëme suñu borom subhanahu wa taala mbëggeel googu moom moo ñu yóbbu ci ñu yërëm leen waaye moo leen yu moo ñu yóbbu ci ñu dimbalante suñu borom mi ñuy wax ne wa taawuna ala birri wa taqwa wala taawuna ala ismi wal kon ba tey mbëggeel gi moom moo ñu yóbbu ñu mën a dimbalante ci suñu biir waaye tamit mbëggeel gi moom moo ñu yóbbu ñu mën a yéenante jàmm ci suñu biir ñun liñ bëggal suñu bopp ñu bëggal ko ñeneen ñi loolu mbëggeel gi moom moo koy lal xadis bi dafay wax ne kenn si ñun wala boo kenn si yéen du nekk ab ab mu'min wala boo kenn si yéen du gëm fii ak bëggalut moroomam li nga xam ne moom la bëggalal boppam te moom mooy fii ak yéenewut moroomam li nga xam ne moom mooy yéene moom la yéeneel boppam ci lu baax di dawal maanaam di di dawal moroomam li nga xam ne si moom lay moytu ci safaan ku nekk li nga li nga bëggal sa moroom yéene koo am si lu baax nga yéene ko sa moroom waaye tamit ku nekk li ngay moytu di ko daw di ko ragal amaanam di ko di ko moytu bu baax a baax di ko moytul sa njaboot waaye tamit na ko moytul sa moroom jullit loolu moom moo ma loolu moom mooy tax ñuy wax mu'min loolu moom mooy tax ñu mën a wax ne kat kii mu'min la kii dafa gëm yàlla nekk noonu tamit bu ñu xoolee àq jullit si moroomam ngir ne loolu lépp rek ay muamalaat la xadis bi daf koy tënk si juróom-benn mais juróom-benn yooyu ñu ko seetantalee toj ko seetantal ko bu baax a baax dañu gis ne mboole muamalaat yépp xalaat rek mi ngi ëmb si juróom-benn yooyu noonu te juróom-benn yooyu bi si jiitu moom mooy jullit bi bu dajeeg moroomu jullitam da ko na ko nuyu loolu boo dee xool na ko nuyu loolu ma maxabba mi ngi si ndax nit ki ngay gis ubbil ko sa kanam yaatalal ko. ba ba ma ba ma ba mu sawar wax ak yow nga koy nuyu loolu kon boo dee xool ay yeneen muamalat yu rafet mi ngi si mi ngi si mi ngi si ëmb kon benn boobu noonu bokk na si. ki nga xam ne boo dajee moom nuyu ko kon kooku bu la nuyoo di nga ko fay gis nga muamalat yi kon noonu la demee benn baa ngi noonu ñaareel bi mooy bu la woowee na nga ko wuyu ça veut dire que bu la yitte woowee na nga ko wuyu bu amee événement wam wala wala boo xam ne si dala saa maam te saa soxla sa teewaay ba tax invité la ca su jàppandee na ko dem wuyu ji si loolu noonu. waaye tamit su fekkee ne dafa am li nga xam ne si moom mooy mbégte na ko ndokkeel da nga xamal ko ne kat wan ko ne kat yéene nga ko ko nekk noonu tamit su amee naqar na ko bokk ak moom nga mastawu ko kon loolu moom mooy bu la woowee na nga ko wuyu mooy ñaareel bi ñetteel bi moom mooy su diggee si yow di la di la maam di la di la laaj conseiller na nga ko conseiller loolu àq la warteef la boo xam ne dañoo war ci suñu diggante ak suñu moroomu jullit ñi waaye dañoo war ak suñu diggante ak suñu mbokk yi ki nga xam ne daa dikk si yow di la laaj conseiller amaana daa am koo xam ne si daf kaa def loo xam ne waru ko woon def koo xam ne daa jëflante moom jëflante bu rafet mu dikk fay ko safaan wala mu jëflante mu jëflante bu ñaaw mu dikk si yow daal lee gaaral mbir moomu kat di la ci laaj conseiller yow tamit na nga ko conseiller ci loolu na nga ko wax ne kat waaye na nekk conseiller bu rafet na nga ko wax ne kat ah. moom de li mu jëflanteeg yow amaana kat daa juum nit daa matul waaye kat jéggal ko bu ko topp waaye yow li li nga xam ne def na la ko si lu ñaaw bu ko topp ba tax nga dagg lu rafet li nga daan jëflanteeg moom na nga ko conseiller ci mbooleem mbir moo xam ne dikk na si yow soxla maam soxla si conseiller nekk noonu tamit loolu boo dee xool amaan na beneen muamala boo xam ne te muamala xasana la jëflante bu rafet la bu làqu si mbir moom noonu te moom mooy sa moroomu jullit boo gisee muy def loo xam ne si waru koo def amaana loo xam ne si dëppoowul ak ndigal suñu borom yi amaana loo xam ne si gënul si moom te yow nga xam ko na ko maam na nga ko ko conseiller na nga ko yedd donte ne di ko si yow sax du la laaj conseiller na nga na nga laajee bi na nga na nga ko laabiree si loolu noonu nga wax ko kat ah lii de baaxul ah lii de gënul lii de boo ko bàyyi woon mooy gën lii de suñ boroom kat loolu bu gërëm lu ko mën naa indi meram loolu noonu da yedd na nga ko na nga mu bàyyi ko kon loolu warteef la boo xam ne sii dañoo war ci suñu moroom jullit ñi beneen bi ba tey si àqu jullit ak moroomam moom mooy bu tislee bu waxee alhamdulilah na wax ko xam yarhamkallah mooy mu wax la yahdikumullah yaslih baalakum loolu lool ba tey tamit mahabba la mawadda la lool lépp mahabba la mawadda la beneen maamala yeneen maamala yi nga xam ne si moo nekk si suuf loolu wala mën nañ ko satantal si lool noon tamit moo mooy bu gaañoo bu daanoo par exemple na nga ko wax masta aba gaañu woo bu amee loo xam ne sii tamit daf kaa blessé na nga taxaw wax xamal ko ne kat lii moom métti na ma na nga jël mbir mi nga natt ko ci sa bopp yow bu fekkoon ne par exemple yow yaa daanu par exemple bu fekkoon ne yow maanaam maanaam yow yaa mbëkku fenn yooyu yëpp da nga koy jël nga natt ko sa popp nga maanaam nga mastawu ko si lool noonu loolu lépp ay ay muamala la yoo xam ne yu rafet la yoo xam ne si dañ ko war a jëflante ak sunu moroomu jullit ñi naka noon tamit sa moroomu jullit bu woppee na ko seeti na ko seeti si naka mooy. na nga dem nga mastawu ko nga dalal ko xamal ko ne kat li natt la bu suñu borom teg sa kaw na ko muñ na ko muñ waaye tamit taxaw naa kat maanaam ànd seeg yow waaw bu ko defee na ko ñaanal na dalal xelam delloo si ko maanaam ba mu xam ne li nattub suñu borom la dina ko teggi saa bu saa bu ko neexee kon loolu tamit warteef la bu ñu war. ne ko noonu tamit bu fekkee da nga am sa mbokku jullit boo xam ne dafa faatu naan nanga ko gunge bu koy denc di ko robi yow na nga ànd sa mbooloo ma nga xam ne sii maanaam dañ koy dañ koy gunge ca maanaam këram gu mujj googu noonu di ko ñaana loolu lépp ay ay jëflante yu rafet la waaye ay àq la yoo xam dañoo war ci suñu moroomu jullit ñi bu nga ko seetantalee dana gën a yaatu juróom-benn yooyu bu nga ko seetantalee mën na dem di fulu di fulu di fulu ba ni jëflante yépp di matee bu ñu xeeb benn jëflante bu ndaw ba benn jëf bu baax ci suñu moroomu jullit ñi wala benn kàddu bu baax ku yëkkati di ko wax suñu borom julli ji bu ko xeeb ak lum ndaw ndaw suñu borom mi ngi gis lépp waaye loolu lépp dañ koy def nag ngir jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala bu ko defee bu ko defee ngir jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala moo ñu yóbbu ci maanaam ñu fàttali ko suñu borom xam ne lii moo ñu ko digal dañoo war waaw nañ leen bëgg nañ leen liggéeyal li ñuy wax ne sa nit ñi nañ leen liggéeyal bañ ba ba mel ne dañ dañ leen di jaamu fekk déedéet jaamuwuñ leen suñu borom subhanahu wa taala la ñuy jaamu si ñoom gis nga maa malaa di noonu lañ noonu lañ koy toppantale di ko toppantale maanaam ba ni nga xamee si noonu lay matee képp koo xam ne si daf maanaam ni ngay jëflanteeg comme niñ koy comme ni ñuy waxee képp koo xam ne day jëflanteek yow noo xam ne rafetul noo xam ne si yow amaana lebaloo ko ko si lu baax loolu yow bum la bum la ma bum la concerné yow rek li la war moom mooy li la suñu borom digal si moom na ko jëf moom nag amaa nag moom li mu jëf maa li mu jëf si yow ci lu ñaaw loolu digganteem la ak boroomam loolu digganteem la ak li nga xam ne si moom mooy ndigali boroom yi mi bàyyi loolu bu mu tax nga dagg ko mukk waaye bu mu tax nga wàññi si moom mukk ñu xam bu baax a baax ne ki nga xam ne moom nga bokkal xaqida te moom mooy diine lislaam googu mbokk moo gën a riche moo gën a foor kooku na nga bu baax a baax bul tàqalikoo moom am naa ne foofu la ñuy wàcc ni kàddu gi rek ba beneen yoon incha allah ñu ngi jéggalu bu baax a baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. TV ëttu soxna yu baax yi page yu ñëpp la mu ngi lay ñaan nga aimé sa page Facebook abonné ci sa chaîne YouTube te yaatal kook say xarit ak say am di jàmm